ngeen jot suñu vidéo nag foo leen a jot moo leen vidéo boo a xam li nga xam ne kenn fukki fan ak juróom-ñaar yu talaata sëñ Tuubaa ko ca Daaru Salaam bi jaayil Mustafa Daaru ak sëñ Tuubaa ni mu fokkee alxuraan xasida daa toog fi suuf moom sëñ Tuubaa bokk ful ku kaamil daal di jël Seex teg ci kaw lal bi daal di woo sëñ Amsatu Mbàkke ne ko yëkkatil jaalibatu maraaxib sëñ Amsatu di ko yëkk sëñ Tuubaa foofu loxo yi dara ca bopp ba ne cey mën ko Mbàkke loolu ëpp na de mu ko waaw dafa xam fa ma yàlla teg ma teg ma fa nangu kenn koo ci tudd am na fu mu jaar ak moom foo xam ne dana weesu na déggub nit sëñ Fallou nag da cee raw moom Cheikh Ibrahima moom moo doon bëgg-bëggam sëñ Cheikh Mbay yaaram nettali nanu ko nee na sëriñ bi àgg na ci jël ndab jox sëñ jox jox Cheikh Ibra ne ko demal bokk ak sëñ Fallou sëñ Fallou demal nga bokk ak sa bàyyi Cheikh Ibra dem leen ngeen. waaye koo jub lu mu daree ba kanam loolu du Baay fal loolu du Baay Faal Baay Faal day si lu si sell xay nit a nag kaw ge dof nga defee ne boog ab dof la bu ngeen dajee nga xay nit a ngi soo ko dàqee mu jëm ci sëñ Tuubaa boo jëmee fëreen fu dul sëñ Tuubaa mu jëm ci sëñ Tuubaa ndax ku dul sëñ Tuubaa amoo njariñ. ci man ne ko Ibrahima Fall mu yëpp suuf may asamaan yaa tax ñëpp di ay ginaar may gileem tukkal seen biir Ibra Fall yaa xam dogalub yàlla nangu ko ci man. wax naa ko génn kilifa ne ma lu tax nga wax loolu man ko boo génnee sëñ Tuubaa rek amoo njariñ sëñ Tuubaa laa ne ku moom amoo njariñ mbuus la ku bëgg am njariñ duggal ci mbuus mi ku koo génn doo dara salaamaaleykum wa rahmatulah